njàngub yàlla bi ndakaaru alarba ñaar fukki fan ak ñeneent ci weeru décembre ci atum 2019 xibaaru Noël ab xale judul nañu mayees nañu ab doom ju góor kàttanam dafay sax ba faw su may mbokk yi ma sopp sopp àndandooy jamono yi xarit yi ci ngëm aji ngëm ñi ci krista bi nowel a ngi nii muy xewteeg dund gi ñuy maye ak gi ñuy nangu mu di xaaru bu yàgg bu mottaliku baneexu teewaayu yàlla buy dundal ak digge màgg bu neex mbégtem nowel ci yéen ñépp na mayeeg dund gi ñu jote ci yàlla feeñal ci yéen baneex bu dul jeex mukk nanu teral bu baax xale yi juddu ci dund gi sopp leen di leen faj ak weg ndaxte dund gi dafa rafet te mayeeg yàlla la di gën gi maye nañu baña a sonalati xale yiy màgg bañ leen a jëriñoo bañ leen a siif waaye ñu yar leen ci coofeel ak lewetaay ngir ñu mën a màgg ni mu ware ci mbegte ak jàmm ju mat sëkk waxtu wi jot na ngir sunu réew mu weesu ay jëfi neen ngir ñeme wone ci lu wóor ay xalaat yu dëggu ci lu jëm ci xale yi ndaxte mbooleem nawle mu mën a aar ay doomam dafay saxal xalaat bu baax ngir gën a mën a toppatoo ñu tuuti ñi neew doole yi ak miskin yi na sunu wutum tawfeex bañ a dàq suñu wareefu gën a doon ak gumbaloo ci kanamu ñu bëri ñi ame ay gaañ-gaañ ci biir sunu mboolem nawle Noël dafa tax Bethléem doon dëkkub diine bi yàlla laale àddina si ci xolub jaar-jaari mucc gi foofu la yeesu juddoo foofu la yàlla jële yoonu nit ñi ba jegeñ si ñu def boppam kenn ci ñun baat bi yaramu na daldi dëkk ci sunu biir barkem bu mat sëkk lañu jote barke ci kaw barke ak cawarte nañu dund nowel bile ni ay aji ngëm dëgg ni ab juddu bu bees ci doxalin ak jëfin yu bees ci ku nekk ak ci waree fi doomi réew nowel bi ñuy ubbil suñuy gët ci kemtaani coofelug yàlla ak ci taaru mbind mi ñu war a gën a wégg nowel bi ñuy ubbil suñuy nopp ci wootey ñiy sonn nowel bi ñuy ubbil suñuy loxo ngir seddoo ak miskin yi nowel bi ñuy ubbil sunu xol ngir dundu mbaale gi ak juboo bi nowel bi ñuy teg ci yoonu tase ak keneen ki lu weesu mbokk gi xeet wi aada ji bokk mbootaayu politik bi wala jënn diine ji tey dañuy dégg ñuy wax lu bari ci lu jëm ci bokk ak dugg ci dara te du nowel dafa di xewteeg bokk ak dugg ci dara ci pexem baat bi yaramu ndax yàlla dikkul bokk ci dundu nit ñi ndaxte ndax dikkul dugg ci sunu niteef jaarale ko ci bokkam ak duggam ci dara ndax jàngaluñu noonu ñu mën a bokk ak duggante di dunde ni ay doomi ndey bi muy leeralee teewaayam bi dundal ni ko sang mu sell mi binde baat bi moo doonoon dund ga te dund gaa doonoon leerug nit ñi nit a jël raw gàddu ci dugub yàlla ci xolub sunu jaar-jaar moo di ki mu tànn dafay yëg ni ko yàlla soppe ni mu tegee yaakaaram ci moom xam na ne mbindkat du ko weccee ak dara kon su yàlla tegee yaakaaram ji gën a kawe ci ñun lan lañu war a def ngir feeñalal ko sunu coofeel jaarale ko sunu tàkkute ak sunu seedees dund nanu jànge nag ci borom dund gi ay jëfi ni bokk ak duggante ci weg dund gi nanu jànge wax ci borom bi sunu yàlla ay baati dund di wone ay jëf yuy weg ak suqali dund tàkku ci coobareg yàlla mi dëkk ci sunu biir nanu jàng aar ànd bu rafet ci biir mboolem nit mi mu juboole si nowel moo di xewteeg jàmmug yàlla Yeesu Krista di njiitu jàmm ji xibaaru malaaka ñu déggoon ca guddi betleyem baa ngi nii na yàlla am ndam ca kaw kaw asamaan te na jàmm nekk ci suuf ak ñi mu sopp jàmm jooju la ay nit neen niki ay sàmmkat yu doon fanaan ca tool ya ca seen wetu gëtt mënoon ko nangu ak teral ñu daldi jóg tegu ci yoon wa ngir dem seeti njiitu jàmm ji nanu topp seeni tànk ci déggal sunu ngëm di seeti ànd ak ñoom Mariama ak yoseef ñu sell ñi liir bu tooy bi ñu lëmës te tëddal ko ci ab mbalka na sunu xol fees ak ngëm ci xalaatu yàlla ji sopp sopp nit ñi ba dëkk si ak ñoom soppey sama dëkk leen mbegte na seen dalub xel feeñ te ñu xàmme ko borom baa ngi fii teew na ci sunu biir bu baax a baax Emmanuel yàllaa ngi ak ñun mbégteem Noël ci ñépp ànd ak njiitu jàmm ji Monseigneur Benjamin Ndiaye kilifa jàngub yàlla fii ci Ndakaaru